ña daa janug rasul ngir yaa liggéey ba am musul ba def xaribatu rasul kawe nga mboolem xarnu bi yoon wa nga aw baraw mbindeef ba def doonay gëm yi mbindeef mu ne su ko xamal mbindeef jàmm na mboolem xarnu bi diggante mulkeeg malakuut ba sar ci fii jabaroot kenn sa boole seeni booli bamba bàjjib xarnu bi aras la daa gisee boroom ku siilay xame soloom di wàlla daa fale na teel di folis ni di xarnu bi moom la ñu may nuur jalaal dañu may nuur jamaal bu boole ko firul kamaa leera ni dar na xarnu bi daa leer ca lay jëme ci biir gii leer ci lay ño di kamaal ga lay falay meteel seexal na mboole xarnu bi yàlla la daa sukkandikoo yonen la daan jottalikoo jibril daa di mandikoo ba jot ci buuti xarnu bi téere lay yettirikoo durus ga lay moyndikoo pexe yéen a woon daa jagoo ba sonn bi talif la daa jëfandikoo ma foo la daa daggandikoo ikam la daa sugandikoo moo nandaloon waa xarnu bi tawil la daa xamalu jaami caalee xëy si baamu riwaay lee xëy ni kaam du jag di yow du janni xet fu mu toll nag jën di tagg rasool du war wa tey demmi rasool di def derem ci tarasool mooy genn góor ci xarnu bi dem jàkka moo ko taxanoo jublu fii rakk añ makka ma ne koy jëy fajlu añ na xarnu bi njool makka dal lay sigiree soo ko tuddee mu dal di ree di ñaane daaw waar na xarnu bi fam na ci xëylan bi yaa ji koy li yaa moo ki aala si yaa danam amul ci xarnu bi da doom gu mat gi mu sagu ak am gi mu jagoo ak muy gu gi mu jagoo mu sa tawat ci xarnu bi kattabam jaami boot yi muy jagaa te du ko def ci bi dunyaa da ko wanu gannaaw Mustafa leemu laaw julli jàlle na gannaaw wàccu bëggu xarnu bi bëggul galen bëggul mi jaay bëggul lu addi jaay ku naa gàlla sawaay gañe na mboolem tubaal xarnu bi bëggul fas ak nag ak gëleem bëggul xar doom bëggut a am saqil room di jaay di jëndal xarit bi bëggul la am junni rong bëggul dox di yori bong mooma ta dox dërëm nga bong jëli si di xarit bi dërëm di yàq ab daram wurus sax mu raf batam nawul dërëm xeebul faram moo gën a wuti xarit bi dërëm xamee ko xandeer dinaar xamee ko ganaar ku waaru bamba doy na waar ci yàlla bàjju xarit bi bi léegi yëpp yem fi moom alal yëpp yam fi moom bëggul bañul di xeet di moo gën a wuute xarnu bi bawal bawal akub ajoor sàmm ki baadooloo ki boor ku laal ni jox luy sumu te nañu di si xarnu bi mbàkke gënul fi moom guyaar kon umi mbàkke taar bi caar kenn du ko may sëriñ guyaar xamul ko bon si xarnu bi tabax gënal mu am baar angaar gënul sebaar بعد جنون فتار كنت فجر تقرن بي ولا نار جنار جنون بيار كنت عقير بيد فجار بدف جماعة تقرن wata ganoon saxaar daanu ganoon daqaar usul di yalwaan ak xaar ba yàlla jox ko xarnu bi magga ganoon saxaar ndawit ganoon kibaar nga caar ganoon gumba gu taar gu jox timam ba xarnu bi bambaay borom kun fa yakkoon moo doon ahmadu lamin moo tax amul xeje ki seen moo yer ma ndey waa xarnu baatin ya daa fab dini jóor dina rene bari a defal na leen ci xarnu bi تربيلي على الظلام ترقي من أنا الصمام تسوي بريدي فيهم ومدخر نبيهم جراء لي قم الظلام إن يمود أيكم إلى عيد فالبرم كفلق أمس قرنين كفلق موما قم القم قم براون السمقل ولم يزين السمقل باوان تجاي قرنين ما تقبضوا تمثلوا كفلق تينا ما نلو ما هو يمديه ننجلوا دوتما توقت نبيهم يا رنجد الماء تقتغان taaxel leen ma paraxaan man anda man di coroxaan di buusu gaay xarit yi Cheikh sun imaam yalante ko sun amaam yow lan doylo ba saam la mun nu mboolem xarnu bi sëriñ texam ñu wenne ñeex ba xeram Cheikh Bamba moo safoon xorom safaale mboolem xarnu bi ku leen safoon te ci balaas fekk bi balaas kon day mu wut balaas mbàkke du maasum xarni bi xaw si mooy seeni li naan moo sàmm anteeg alquran addition min doole ñaan moo ko xamal waa xarni moo am fasaa atul saan laay moo xam seen cosaan moo xam li wàcc asamaaw jëm si bi suusi xarni bi moo am maqaarijul uruuf lammiñ yaaram nañ koroof moo yëkkati dem bi mu ngeeg maa yëkkatam ci xarnu bi mooy lim ci saati adnaan wàcc ak wu samaan gram mu dem ji tuuba li ahli qarni tuuba ñeel na kuy murit wéylin ñeel na kuy mayit yàlla na bamba def murit ne leen amin yeen sama xol saabu ngëri la may setal xarnu bi jox naa la faw sax tey maraani sama xol fóotal lu dàq xarnu bi bamba dangay boroomi may cëlin jox boroomi mooy moo tax mu sax bu jide woy ndax te nga jébbal xarnu bi woy ngir bëgg dërëm mbàkke dañuy sàkku ngërëm te bis bu yàlla di dërëm xeet yi newoon ci xarnu bi يوم مجهر نكسب برام بأمغرم خير قديم يعني ويسين جروم يوم يقوم قرن بسعب جنة النعيم te ànd baag fépp doom wurtu yaayu seeni doom te ji dugal waa xarnu bi rilwaan tijji nga leen di jox nga leen di dina doy waa ji la soobu daldi yaani ceeri xarnu bi noppalu ji nag ca illeen yàlla gërëm na la ak leneen yeneen gërëm na la ak yeneen ak la faaw xarnu bi ak mursaliin ak lawliyaa ak taabiin ak lambiyaa junni almalaaka yi gërëm nañu waa xarnu bi ñoo ngi sabon te leen fanaan diggante kaw saraat bi naan nottil te lekk nekk naan